tey nag dama ñëw pour wax leen lan moo ma yëkkati te dafa am juróomi góom yu métti juróomi góom yi benn bi mooy ndóol ndóol mooy nga dem ba li ngay dundee tëla walla balaa nga ko am di nga sonn ndóol mooy nga dëkk foo xam ne fii weer wu ne dañ lay taxawu nga war a fay luyaas mu tëla le cinq dootoo nelaw ñaareelu góom bi mooy ñàkk njàng parce que njàng farata la muy jàngu daara muy jàngu église muy jàng bu mu munti nekk di jàngu école farata la parce que sàkku xam-xam mooy tax nga am xarañ buy mën a tax nga liggéey ñetteelu góomam mooy ñàkk xëy nekk ci kër yeewu amoo foo jëm bëgg nga liggéey mais amoo liggéey ñeenteelu góom bi mooy ñàkk kaaraange ragal a jaar fii ndax dafa lëndëm ragal a jaar fii ndax dangay ragal saay-saay dogale la feebaram feebar la nag ña feebar bañ a mun a faju ñemeetoo dem ci docteur parce que da ragal mu jox la ordonnance boo waree wasin ñu teg la ci saret amuloo centre de santé amoo médical juróomi góom yooyu moo dal sama xarit moo dal kii tax ma bëgg li may def nii moo dal ki nga xam ne kii suma biir xol laa ko def muy Sénégal dama leen di laaj yéen waa Ñaxira ndax góom yi ma wax am na fi wala amu juróomi góomu Sénégal yooyu la ñu faj juróomi góomu Sénégal cinquième juróomeelu président Sénégal moo koy fekk bërigo bu fees danaan dël du yëngu xam lu bare fekkee lu bare ba pare ne tekk Sénégal nag ñi fi am coow di wër di wax te xamuñu sax li xew ci dëkk bi moo fi ëpp loolu lañu ñu bëgg mu dañ fi mbéy boo ci amul juróomi amuloo ko boo mënul béy dundee béy denc béy weccee béy soppi mais pour nga def ko il faut nga am suuf seen suuf si dañu koy sécuriser parce que dañuy changer code bi nga xam ne bii depuis 1964 la fi nekk muy laal waa sur le domaine national bu ñu ko changer dinañu fexe ba suuf si ngeen di béyee mu nekk seen suufu bopp ngeen sécuriser